La fille mm -hmm. s'appelle euh, Marietou, mhm. au Canada. Mhm. Euh, il mm -hmm. euh, y a aussi un autre enfant qui vit à Paris, la, le fils à, à, à Maxime, à Nana, Nana Pleya, mhm. qui fait partie de mes Et euh, le fils aussi à Mbosserassol, qui, qui habite à Belgique. Et là, là, le monsieur avec le lox là, c'est mon grand frère, docteur Djibril Fall. Mm -hmm. Donc ce jour-là, on avait envie de donner la parole aux enfants. Nous avons Euh, sujet bi c'était euh, les discussions disputes les disputes dans la fratrie mooy maanaam werante bi xuloo yi euh, defante bi ci kër gi daal. Mhm. donc après nag on s'est di que li gën neex pour xale yi pour ñu mun a xam parents yi xam ñu laisser la parole aux enfants. Mhm. donc la on avait comme après y a d'autres enfants qui sont venus doomu les les enfants de Dirso. Mhm. aussi dañoo ñëw aussi rejoindre kii bi live bi. et puis xale yi on les a écoutés ce jour-là et on était très très surpris mm-hmm. moo chaque fois ma naan Djibi il était là il était man presque je ne parlais pas mm-hmm. c'est lui qui moom moo doon gérer mm-hmm. et c'était tellement bien ça montre que parents yi dañu war di déglu yi parce que lépp importance mooy li nga xamante ni xale y dañ koy wax seen ressenti parce que ñun en tant que parents Pape on a l'habitude de parler et de penser à la place de nos enfants. de nos enfants effectivement dañuy wax rek. ça nous arrive à nous tous. dañuy wax rek duñu déglu. Mhm. alors que dañuy fausser la communication alors communication c'est deux volets. Il y a le volet expressif mhm. et le volet réceptif. mais surtout que léegi ñun dañu faral di toog naan xale amatul. Ah. ginnaaw na gëm nañ ni xale amatul ku ci jur sa doom ak âge bu mu mënti am. Mhm. waxtaanal ak moom comme kuy waxtaan ak mag. mag comme kuy waxtaan ak borom xel. Mhm. parce que xale de mhm. bébé à muy màgg. Mhm, dafay comprendre. et je pense que communication boobule. war nañ ci gën farlu. c'est important mooy li ñu naan la communication efficace. la communication efficiente. xamante ni mooy base relation yi dama naan tout le temps parents yi. day leen di coytu seen doom yi. xale bi bu xëyee la matin balaa muy dem. Euh, aide la mu am une mu commencé bësam avec de mots positifs. Mhm. parce que les mots positifs pas dafa am benn impact boo xamante ni yoo xam ne tey jii booy génn sa kër tey jii. Mhm. nga wax sa doom ne ko yee sama champion bokkoo ci de choses comme ça. journée neex na ba pare. ah man de c'est ce que je fais. macha allah kon ne bu ko bàyyi sama doom bi daa woote star sama cat mi. wallaay ndeysaan bu solo ba pare ma ne ko tu es le plus beau. maa ko wax de. bu solo bu lekkee ba pare ma ne ko tu es yooyu. waaw dafa baax. dafa yii mooy valorisation de l'enfant. j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit. ñun fii mhm. Sénégal. Mhm. du ñu faral di wax suñu ay doom wala suñu ay parents. du ñu mhm. faral di wax je t'aime par exemple. c'est important moo tax toujours day am kersa bu am. ci diggante way jur yi. ak doom yi. alors que relation de confiance moo war a am. entre ay wayjur. ak ay doom. relation de confiance. absolument c'est très important. c'est c'est c'est vital. parce que relation de confiance mooy indi doom bi bu jaaxlee. ak lu mën di am. du ragala du du la ragala. confié wu ci yow bu fekkee dafa def loo xamante ni bêtise la ñu ko mhm, tuddee. Mhm. et que yow d'accord ci. Mhm. dina ñëw waxtaan ci ak yow. parce que fexe nga ba am relation de confiance. entre yow ak sa doom. j'ai un petit frère Ndiaga Fall maa ngi koy nuyu c'est un très grand réalisateur. Euh, moom euh, de de très belles choses. moom par exemple il s'occupe pas des enfants. il s'occupe plus des animaux. voilà day organiser ay émissions yu mag ci gétt géeg ñoom seen ak ay nit euh, mu ngi ma naan euh, je te jure certains parents ñoo tax seen doom yi di décourager mm-hmm. au lieu ñu booster la mm-hmm. mais non c'est dommage mooy relation de confiance bi ñuy wax. relation de confiance et c'est ça je pense l'objectif de la classe de Rahma. c'est ça l'objectif de la classe de Rahma parce que comme je l'ai dit euh, classe de Rahma sama vécu la. parce que li may wax ni man par exemple dañ ma naan woy patoche def naa ci sa benn benn rubrique boo xamante ni mi ngi tudd la disposition euh, cognitive affective ou cognitive mhm. ça veut dire que il y a l'affectif mooy li nga xamante ni fii la sa mhm. xol xam mhm. nga koy ressenti le ressenti ak le cognitif mooy li ngay jàng léegi xale bi boo bëggee par exemple macha allah li nga bëgg nga ko ci moom il faut c'est très important de passer toujours par l'affectif dañ naan quand tu passes par le cognitif il dama tayaloon togg mënuma ko woon raxas daaw ma ko def daaw ma dem yónnant mënuma woon dara benn jour ndeysaan sama bàjjen ñëw sees ñu sama bàjjen maa ngi lay nuyu au passage fan njëga yaaram bi di maag may sa tendu jo dama koy tagg parce que dafa may tagg labasaas bi parce que tagg boobu mm-hmm. Pape dafa am lu bari lu la sama dund ah, très bien moom sama bàjjen Mariam waaw dafa ma dooleel moom la ñuy wax ni mooy la valorisation de l' enfant xale mm-hmm. da nga koy valoriser da nga koy taggaate mm-hmm. moom dans la société traditionnelle moom la ñu wooyee Euh, les chansons de geste xas. bu ñu daan dem guerre. nga gis koo xamante ni même su naree daw dañ koy xas ba dootul dawati. xas la euh, wolof bi moo wolof bi xas la. mais du comme xas xas xas xas. xas bu négatif xas wax lu ñaaw mooy maanaam xas. kañ bi kañ la métti bu kañ la dooleel la. benn journée sama bàjjen ñëw kër sama tante sama bàjjen ndeysaan Marème Fall maa lay nuyu bàjjen mm-hmm. mi ngi Thiès route de a mm-hmm. HLM je l'adore sama bàjjen boobu na sama rakk papa la sama xarit la ñu ñëw ndeysaan mu ne mm-hmm. mu ne ah tey de sama yaay moo ñu toggal tey ceebu jan tey rek kër gi ñëpp daanu ci suuf sama sœur yi moom ndeexa di fàkk ne dañoo étaient à terre sama yaay ne ko kan mu ne sama yaay mooy togg ceebu jën ku nekk naan lan laay lekki ñu ne ko kii rek mu commencé ma tagg Pape Cheikh wallahi lazi fan jógu pend birima ak maawu mbay sa teen di joor sa maam moo daan dajale kaco di wax ak ren balaa waxtee ñoom déwén mhm. birima mi si benn baat sama yaram bi daw mhm. pap damaa jug dem ci waañ bi mhm. pap jour boobu c'est-à-dire ko jàppee détail mais donc da nga koy ci yar bi la bokk mais c'est la base te sant ne bu nekk am na am na way bu rafet ça veut fii sant bu nekk rek boo ko gëstoo nga xool ko. Mhm. am na loo xamante ni mu ngi ci sukkandiku. Mhm. nga valoriser sa doom loolu mooy suñu particularité. mooy su mooy suñu mooy sa suñu cosaan. taggaate fii tagg bu nekk. Mhm. sant boo gis rek mën nañ ko tagg donc xale. loolu genre combustible la ci moom. xam nga bu ñu wax Pape estime de soi tey jii. Euh, la la quatre vingt quatre vingt quatorze pour cent des parents yi may accompagner. seen problème mooy seen doom amul estime de soi. mais estime de soi mooy xale bi gëm boppam. fonk boppam ba kenn du ko mën a euh, briser. des fois tu vois des fois ce qui se passe xale yi des dañu xëy le matin duñ bëgg a dem école mooy parents yi ku ci sa doom xëy biiram di métti bëggul dem ñu ngi koy intimider à l'école ma nga fay dund loo xamante ni peut-être mënu la ko wax parce que xëy na en tant que parent joxaloo ko temps bi mu wax ko donc questionner nañ questionner xale yi mm-hmm. le le soir xale bu wàccee loo ñàkk ñàkk ñàkk jot prends le temps nga laaj ko comment ça s'est passé à l'école mu wax la Pape c'est important questionnement efficace boobu noonu te ñuy déglu am une écoute active parce que expressif bi rek il faut ngay wax di wax di wax mais aussi il faut nga déglu aussi xale bi tamit xale yi ils ont tellement de choses en eux Pape ils emmagasinent tellement de choses il y a pas d'enfants difficiles <laughs> il y a que des adultes impatients waxaatal li yaa pas d' enfant difficile y' a pas il y' que des adultes impatients des adultes qui ki qui sont pas bien avec eux-mêmes. Mm-hmm. des de man il m'arrive des fois de commencer avec un enfant. Mm-hmm. après je dis à la à la maman. il mm-hmm. y a pas de problème ton enfant le problème c'est avec toi. on va travailler sur ton bien-être et sur ta santé mentale. Mm-hmm. parce que c'est toi qui as besoin estime de soi bi c'est important base la. combustible ça veut dire que même ci dund gi bu fekkente ni yéen seen dund yaag sa doom yombul parce que peut-être moyen financier yi ça ne suit pas et tout am na nooy jàppale sa doom ci estime de soi xale bi dafay dem. Mhm. estime def naa que représentation bi j'avais pris deux billets am nga deux billets de banque. Mm. yu tolloo ñoo xam te peut-être deux cinq cent wala deux mille francs. man nag xam nga ay ay ba tey baax na doon euro na. nekk deux yoo xamante ni ñoo bokk ah Pape yow mii kat moom macha allah kat. euro rek laa eh, yore ma ne yow mii dangay mat ngaa karkat. vraiment voilà ah man lii lan la nii. euro da lay doxat CFA bi. macha allah. <laughs> donc estime de soi pour ma pour ma accrocher les gens ñu xam lu estime de soi. Pape jëla ñaari billets nga xool. Mm-hmm. ñoom ñaari xam nga ñaari xam nga c'est deux c'est cinquante euros ak cinquante euros. Mm-hmm. léegi jëla benn cinquante euros nga nga moxoñe ko. Ah, sama biir bi laay bañ a. waaw di ko moxoñee nag moom parce que dañuy représenté. d'accord voilà j'ai pas ko léegi xale bii nii. Mhm. mooy xale bi nga xamante nii mhm. dañ koy yar ak estime de soi. Mhm. di ko tatagal. parents yi di ko déglu. duñ ko toroxal. duñ ko comparé ak yeneen xale parce que on le fait très souvent. ah sa doomu nijaay diw de moom ak mën a jàng moom de moom. papaam nee na ma nangam nangam yaa ngi rey sa doom. dëgg de ils n'ont pas la intelligence peut-être sa doomu nijaay diw il a l'intelligence logico-mathématique maanaam ci math et tout et tout mhm. mais peut-être que yow tu as l'intelligence spatio-temporelle tu as l'intelligence intrapersonnelle tu as l'intelligence interpersonnelle tu as l'intelligence kinesthésique mhm. tu tu des compétences yoo xamante ne kii amu ko mais des fois les parents ne voient pas ça ils voient juste les notes mhm. léegi xoolal billet bii nii wane ko wane beneen billet bi non téel ñaar yi léegi bii nii nan la mel dafa boxom ni mu froissé nii au sens propre comme au sens figuré xale bi nga xamante dañ koy yar di ko toroxal di ko dóor fu ñu di ko saaga fu ñu toll lii mooy lii la nii la mel est-ce que est-ce que est que la valeur change les billets euh, non non ça cinquante euros ouais. la même valeur mhm. donc ça reste deux enfants mm -hmm. qui sont des dons du ciel mm mais ci seen apparence ci seen nit ñuy dundee mhm. xool kii moo gën a clean moo gën a tranquille kii dañ ko froissé au au sens propre au sens figuré ñoo bokk valeur mais kii froissé nañ ko. kii froissé nañ ko et puis là cet enfant va grandir avec ce qu'on appelle en psychologie les blessures de l'âme parce que dañ ko dañ ko écrasé. Mm-hmm. après mën na nekk continuité ci njabootam. mais day def day def genre ah, ah yor nga sociologie xanaa Pape. macha allah ak mag ñi rek. mu ngi noonu. loolu lay indi nga production mu nekk genre cycle. et Sénégal boo fi yàggee. ah doon fi li ma fi doon waxuma ko boo mu réew <laughs> ah. <laughs> il faut psychologue ngay nekk lii mu ngi noonu gis nga. Ah. donc xale bii ni après dafay màgg. Mm-hmm. il y a 90 pour cent de chance mu recon mu reconnu le type le même type d'éducation pour son pour son pour ses enfants parce que loolu la xam. te nit ki li nga xam moom ngay joxe. mais kooku noonu tey jii nii pour nga xamal ko ne ko ni ñu la yaree de dafa xaw a doy waar. Mhm. il faut y aller doucement. parce que dañuy dem ba dañuy dañuy sublimer xam nga luy sublimer. dañuy dem ba dañuy dañuy par exemple des fois quand je vois des postes ci affaire dóor ak yooyu. Mhm. nga gis des fois ku tëb ne maa ngi sant sama yaay ak sama papa. dañ maa toroxal moo tax ma mel ni ma mel benn parent mos na ma ko wax. Mhm. maa ngi sant sama ndey sama baay toroxal ma ak dóor moo tax ma mel tey ma mel. ma ne ko noo mel mu ma waa maa ngi sant yàlla. ma ne ko mais noo mel mu ma am naa sama liggéey na naa mais fi ma bugg fi ma ko doon xaar demu fa. parce que dañu yaakaar ni réussite d'une personne mooy nga am des bon notes à l'école mm. euh, am une belle un bon un bon boulot. Mm. une belle voiture. Mm. un bon un épouse. Mm-hmm. loolu c'est pas la réussite. Mm-hmm. c'est une réussite. Mm-hmm. donc parce que y' aussi nit ki xale bi c' est pas juste c' est beaucoup de sphères ah. y' la y' a y' cognitif mooy maanaam jàng bi comme 1 plus 1 ce qu' on te dit à l' école li ngay jàng ba mën a am des bonnes notes kooku c' est le cognitif. c' la capacité de l' enfant mu traiter information nga jox ko ne ko lii ak lii lan la mu traiter la ko. loolu c' est une sphère de l' enfant c' le côté académique cognitif. mais y' a aussi le personnel. côté développement personnel. côté estime de soi. l' émotionnel. y' a y a l'émotif donc yooyu yëpp c' tout léegi boo jëlee yow sa doom nga bëgg ne ko da ngay jàng da ngay jàng kenn du la raw maa ci waxtaane sànq coro kenn du la raw di nga jàng maama rey la xale bi il va développer de l' anxiété xale bi il va de l' angoisse xale bi c'est que li nga bëgg ci moom di nga ko am ci moom mais à court terme parce que teg nga ko choc boo xam ne xale yi nga xamante ne ndeysaan fu mhm. fu ñu toll après dañuy am yoo xamante ne dañuy naqari deret vivre que amuñu habilité sociale ah, dëgg la parce que ñooñu leurs parents dañuy miser ci l'académique fu ñu toll moom mooy di mer di mer bu leen juger te mhm. ndaw jala Mm-hmm. y a ils ont des besoins primaires yoo xamante ni ils n'ont pas été satisfaits mm-hmm. xale du jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng regarde on de perdre des artisans des artistes parce que y des parents yoo xamante ni ils ne comprennent pas que leurs enfants ont des ont des intelligences sur autre chose mm-hmm. ñu jëlee focaliser ko rek ci jàng bi jàng bi jàng bi jàng bi c'est très bien mais il faut ñu encourager les enfants bu dee par exemple man keroog benn fii elle a partagé un dessin de sa fi mhm. styliste. Mhm. kooku elle part pour être une future Diouma Dieng Diakhaté macha allah. ma ne ko encouragé ko. Mhm. ñoo xamante ni seen doom yi ils ont des dons en dessin. des choses en écriture. mais faut qu'on arrête de dire suñu doom yi da ngaa war a jël premier. yaa ngi koy def yaa ngi rey sa doom. parce que y a ce qu'on appelle les intelligences multiples. a beaucoup de sortes d'intelligence sa doom mun na bañ a ay ci mathématiques ay ci français wala mu am li gën a am solo mhm. les compétences globales man pas plus tard que hier j'ai discuté avec un parent mhm. mhm. diw de sama doom ji dañu ko jàngaloo mais jàngul waaye xoola mun na la ibil télé détache pièce détaché ko. cam pare monté waat ko. ba télé bi nekkaat normal technicien ngi noonu. wax na ko san s'en rendre compte. technicien ngi noonu bu bu baaxul ci jàng bi mën nga ko encourager. ci loolu bien de façon très positive. dóor dóor dóor rek. sama moom bët moom moom moom. moom moom moom moom moom fan yi dañ lay tàndal par quatre. ay pap ay tàndal par quatre. gis nga ay front mm-hmm. contre la table. wallaahi toroxal xale. des na gàddu xale bi. gàddu xale bi di ko di ko di ko di ko wërloo ci école bi man mm-hmm. bon bëgguma jëw sama jëkkër quoi mais am na enseignante moom ba tey da koy fàttaliku. Mm-hmm. ma nga Kaolack nee na ma ba tey du ma ko fàtte. Mm-hmm. parce que y avait une chanson boo xam Cheikh Touré je suis désolé mon mm-hmm. de devoir raconter ça mais c'était important. Mm-hmm. parce que il avait des difficultés en apprentissage. et puis y avait une chanson qu'il n'arrivait pas à chanter. et puis il la chanson. donc donc au lieu <laughs> la chanson. <laughs> <laughs> la chanson s'appelait euh, je sais euh, on euh, on peut ramer sans ah. qui on peut voilà ah léegi moom nag je vois je vois la chanson. sa sa waa ji nag il disait Moussa Ram. <laughs> ñu dóor ko muy bëgg non non fii dafa am am na dóor bu grand bu ñu dóoree bu tudd tendre am na bu gën a bon boobu. boobu nañ ko doon ah, enseignant da ko doon téye ci loxo. ñu wër ñu wër ñu wër classe yi. Mhm. fu ñu dem mu taxaw mu wayloo ko mu way ñu daanu ci suuf mu gàddu yu beneen classe. way fa mu way fa ñooñu daanu ci suuf. mu ngàddu ñëw beneen classe xoolal humiliation boobu ci xaal fii une honte honte te loolu noonu c'est que am na ñoo dañoo takkal sax xale yi am na sama benn collègue Férouz nee na moom en Algérie elle est am nañu enseignant bu nga xamante ni te parents ils allaient vers lui pour mu accompagner seen i doom mm-hmm. da doon c'est xale bu defee erreur dañ ko doon takkal ay nopp mbaam mu yendoo ko gis nga gis nga ko ci bàyyiwul di humilier sa doom gis nga dëkk bi ni mel ni nii nii on peut changer les choses man j'invite les parents man je n'impose rien mhm. parce que man sama philosophie du imposer mhm. man bañ naa ko ba Pape du ma nekk sax ci discussion mhm. ça veut dire que je te dis ce qui se passe. non mais et puis c'est bien oui tout le monde regarde. on, <laughs> parle de rahma. c'est quoi la rahma rahma mooy yërmande. Mhm. mooy la bienveillance. Mhm. yàlla bu ma jooy yal na ma yàlla jàppale. amiin ba bu ma jooy parce que su ma jooyee du baax yal na ma yàlla jàpp ma jooy parce que. dafa dafa diis dafa diis reetaanloo <laughs> ah. parce que sinon je vais pleurer. <laughs> léegi euh. juste en étant des personnes. Mhm. juste sur le côté humain. dañu war a bëggante am bienveillance entre entre nous. avant ñuy nekk jullit wala chrétien. Mm, juste des personnes dañoo war a jàppalante. Mm-hmm. ñu dem nag am diine. Mm-hmm. ñi nekk jullit ñi nekk chrétien en tout cas bible ak bible laa xam ak euh, Coran macha allah. Mm-hmm. ñu wax la ne la euh, euh, njaboot gu nekk da koy sàmm kon ni ngay sàmmee. Euh, troupeau mhm. gis nga Pape boo seetloo sàmm bi buy dem ak troupeau bi mhm. yat lay téye mhm. mais yat bi est-ce mu dal ci ci ci bet yi gis des fois benn bëri bi gàllas bu romb bu kii mais tu vois toujours la la kii day dem an ko an ko mu delluwaat figuré loolu man de mosuma gis en tout cas ci toutes les documentaires que je vois et tout muy dóor nii du dóor ça veut que euh, kii bi dina dem nag bi dina dem wala bëy bi wala dara mu dem aj aj aj mu ñëw toppaat ci nagu Dakar yi dañoo dem sax ba soxlaatuñu berger ah gis nga jékki-jékki gis délégation autonomie autonomie ngay am foofu nag yi dañoo libre de bañaa libre Dakar nii ñëw ba noppi itam kenn du leen sañ a fel dégg na boo rombee groupe nag da ngay gaare ba ñu dem ñëw àndatuñoo berger bi sax donc segam def na ko ci mala yi. ah nañu ko def ci suñuy doom. baax na daal nañu ko def ci xale yi. c'est tellement important ce que tu es en train de raconter. je pense que euh, ci kanam tuuti nañ joxe joxe toutes les informations concernant parents yi naka la ñu mën a mm-hmm. duggee euh, ci classe de euh, Rahma. Mm-hmm. ak Ramatoulaye. Mm-hmm. qu'on apprécie yi bëgg naa ko. ça c'est des informations qui font du bien initiative yi dafa am solo et nous tous les mercredis nous parlons de ces initiatives yi ñu jagleel xale yi et lii def ci bokk et elle explique elle propose maintenant je suis libre. Mhm. Euh, de def euh, euh, ni ngeen ko bëggee après tamit. ëllëg du añ du reer waaye lu mat a la mhm. sédd itam say doom ngir ëllëg mhm. dafa baax ndax jamono bu ne ak la cay xew certes waaye éducation fi mu nekkoon ba tey moo ngi fa bañ di toroxal xale bañ di ko jox gàcce loolu daf koy permettre mu mën a màgg ba mën a imposer boppam dans le monde du travail mm. ku sañoon ñun loolu la gëm fii Sénégal mm. bu sa doom màggee yóbbu la màkk mhm. teral la mhm. li taasuka ci naan kaala gi ci bopp bi ci ndigg la njëkke mhm. euh, bu ngeen bëggee nag euh, kaala googu njëkke ci ndigg li euh, mujjee ci njëkke ci njëkke njëkke njëkke ci bopp bi kaala gi ci bopp bi ci ndigg la njëkkee euh, euh, mujjee ci bopp bi yéen a mën a jàppale mm. euh, seen seen doom yi mm. tu restes avec nous Ramatoulaye mm. puisque tu es dans le monde du digital on va en profiter wax la aussi parallèlement li xew biir internet ak Mamadou Ndiaye qui est aussi qui a sa sœur qui est au Canada ah oui sa magasin Canada dosel yow tamit tuuti am nga mag bu nekk Canada oui Khady Ndiaye ah, Khady Ndiaye elle nous suit même du Canada. yow kay Mamadou tu a venir nous voir alors. Ah, incha allah yow c'est suñu kay yàlla bu mu dem. dem Canada ñibbiseem. loolu yàlla na ma fekk boog ma jël conseil. bon yàlla na nga dem. mais sa ñibbisi yàlla na ma fekk feneen un ba un mois yi passé sinon kenn du dégg. moment boobu boobu. dina <laughs> fekk la sama dellu si Amérique je pars à New York. Ah. sama doom woo ma téléphone il a 10 ans Daddy je l'embrasse très fort Daddy ki mu fee papa ma ne ko yeah how are you Daddy yaa ngi cool ok yes no problème nan nga bëgg ma jëndal la euh, mu ne ma dàll et tout ça ma ne ko ok yes mu jékki-jékki ne ma rek mais yow papa euh, pourquoi loo wax boole ci yes ma ne ko Amérique laa nekk mu ne ma même pas deux jours nga ma yes ak no course. of course yeah I'm telling you donc boo jógee Canada xam naa dinañu am problème euh, on parle depuis tout à l'heure de la classe de Rahma qui fait ravage sur euh, internet. Mm-hmm. Euh, classe bi mu ngi xewee internet Mamadou Ndiaye. effectivement ak ay plateformes yu am solo ay Zoom ak yu ñuy utiliser noonu. ak fi jamono toll moom jar na utiliser plateforme yi nga xamante ñi ngi ko gën a découvrir ci jamonoy Covid bi surtout professionnels yi mais surtout Rahma. Mm-hmm. la classe de Rahma moom en tout cas mm-hmm. internet yi ñoom ñëpp a ngi bari na ci ñi nga xamante ne ñi ngi naan contact rahma mi dañ ko soxla. bah oui y a plein et puis et je reçois même des fans par exemple euh, j'ai une sœur. Euh, féministe loolu laa koy tooñee euh, mhm. Amélie Ba qui est psychologue et qui qui qui qui qui qui, se bat toujours pour ñu jàppale jigéen ñi ak xale yi elle dit non seulement je suis fan de Ramatoulaye euh, enfin on parle du bien-être des enfants et de comment on transmet comme ça des traumatismes sur des générations. Elle a mm -hmm. tellement raison euh, moom Amélie Ba on peut éduquer sans violence et ah. sans humilier l'enfant. surtout c'est important euh, loolu en tout cas Rahma waxtaan bi nga séq moom moom gis naa ni intéressé na ñu bari rawatina euh, internet yi ñoom ñëpp a ngi commentaire ku nekk naan Rahma mii li muy wax am na solo. explication bi muy joxe ci ni ñu war a yaree suñuy doom. na ban comportement la ñu war a am. en tout cas c'est c'est top quoi il faut ñu joxe contact yi ni mu nekkee ci réseaux sociaux yi euh, que ça soit mu nekk Facebook Twitter message yi nga xam da koy joxe pour euh, les parents. yow de xam naa tendre nañ la par quatre ba nga sonn. boo xam noo ci xamee noo ko xamee. sànq bi nga waxee sama nopp bi sama nopp bi boo gisee mu kotom dañ ma daan taata. man de sànni nañ ma bale sànni bale. sànni nañ ma bale ba taay ak yow sax bale lañ la sànni xaaral ma gaaruwaale sama yaay moom kuddu ci noir kuddu ci noir mooy arme arme de guerre am arme fatale la moom xef xippi mu sànni la kuddu ci noir bi <laughs> mais dinañ xam ni. dinañu xam ni nous sommes en 2021 et nous tous on va porter ce combat pour qu'on aide ces enfants à bien grandir oui, avant de continuer waxtaan bi ak Rahma je te laisse le soin nga wax ñu aussi parallèlement yeneen mbir yi nga xamante ni actuellement ils font buzz euh, sur internet pour ton journal du web voilà juste après ñu ñëw voilà donc merci Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax malheureusement du ñu mën a teg euh, way bi euh, euh, voilà c'est des petits quoi au niveau de la technique mais terewul dañuy àggali midi plus bi ak li ñuy waxtaane sànq ba tey la classe de Rahma on reçoit beaucoup de commentaires depuis tout à l'heure comme quoi kenn ku ci nekk am nga conscience ni war nañu gën a xoolaat naka la jàppale suñu doom yi naka lañ leen di yaree y a beaucoup de jeunes yoo xamante ni déversoir d'insultes lañu def euh, ci bërëb bi ñu tuddee fachosphère que muy Twitter que muy Facebook yooyu yëpp sax ci euh, yar yi la. Mm-hmm. mooy indi euh, nit di naqar yi deret mooy indi vulgarité. absolument muy indi ay saaga. Mm-hmm. saaga mag saaga mm-hmm. xale. saaga sa morom. xas sa morom révolte toroxal sa diir dire léegi toroxal nit nit ñi dañu koy def. Euh, ay beaucoup de fierté. fierté maa la gën a bandi. maa la gën a wuyu gën a rey rey làmmiñ maa la gën a wuyu. Mm-hmm. maa la gën a sadik. Mm-hmm. sadik ah, voilà maa la gën a maa la gën a féroce. Mm-hmm. yooyu yëpp. Euh, am na fu fu ñu fayiree ci euh, façon bi ñu yare yaree xale yi ramatulaay parce que parce que kii la ah, mun nañ ne euh, kii la conséquence la c'est des conséquences directes conséquences yi la bokk oui d'une éducation violente mm-hmm. parce que comme li ma wax sànq ci ma Massamba géey li ma mm-hmm. bëggoon waxtaan ak moom ci les croyances limitatives mm-hmm. daf ci am yoo xamante ni damay bëgg des fois ñu revisiter ko mais comme nag bon sama jëmu ji lewet ji tolluguma fenn foo xamante ni mun naa ñëw Euh, di di kase damay proposer rek. Mhm. mais man moom xam naa ne mhm. boroom jubbu yi. tam mhm. sant Fall. xam ki may wax du. Kocc Barma waaw kay ou bien li mu wax on l'a mal interprété. ou bien li mu wax. dañ koy jàppee comme stéréotype. je pense qu'on l'a mal interprété. merci parce beaucoup. que docteur Massamba Gueye leeralal nañu ko ba ah, ah, tey. Ah, leeral na ko ba tey mais ñun dañuy faral di gaaw fatte parce que leeral na ko ba tey. xale xamul yàlla xam na yar. Mm. Euh, dañ ko jël ne. Mm. dañ koy wax comme. comme ndam nga dégg ñu naan boo dóoree damay dóor ba mu dee su ma ko su doon man su ma ko ŋàddee et tout de xale xamul yàlla xam na yar boobu pourquoi ñu jël yar bi rek euh, là là je vais moo mon frère Djibril docteur Djibril mm-hmm. mu ne kii a dit yar boobu noonu mooy yar bâton est-ce yar boobu du yiiraange yërmande yeete yedd te man je yar boobu la sax. ne ne boobu la ah dañuy jàpp ni yar mooy dóorekaay bi on a on on dañu toll fan ba dañu sublimer la violence. nga xam mhm. ne tey jii nii ku ci nekk te da nga yaakaar tey jii tant que dóoroo ba ba nit ki ne las rek. yaroo yaroo dëgg la. mais yaa ngi dóor xale bi ngay door mhm. di nga am loo gagné nag parce que par exemple da koy door pour mu def benn affaire léegi nii dina ko def mais tu yaa ngi koy am si le court terme xam nga pas boo yar sa doom da ngay bëgg mu dem. maanaam loo xamante ni même bu la gisul dina ko def. investissement à long terme la. merci yaru xale dëgg la c'est ça. mais bu dee yow da ngay doo di saaga di xas bi da lay ragal. et pour des stratégies de survie d'ailleurs j'invite les parents même à regarder ma rubrique sur pourquoi les enfants nous mentent-ils parce que le mensonge finalement ça devient une issue de secours. soo xamee ni boo waxee wala boo jëfee ñu rey la ba nga dee da ngay fen dëgg la parce que fen boobu moo la ciy génne moo tax xale yi léegi mën a fen dëgg la de dañuy fen ba dugg boîte vocale parce que xam nañu suñu fenulee musiba dal leen te dañuy ragal dëgg la de donc yow yaa ngi dóor yaa ngi toroxal yaa ngi xas di nga am li nga bëgg résultat mais ci court doon xale mhm. boobu noonu soo ko wanee ginnaaw du ko def mhm. soo la gisul du ko def mhm. alors que su fekkee da nga jàngal sa doom respecter les étapes étapes yi mën nañ ne première étape bi mooy jàngale mu leer moom lañ tubaab moom la ñu woy ci tubaab suñu jargon ñun euh, l'explique euh, l'enseignement explicite mm-hmm. comme tey jii Pape nga bëgg a nga bëgg a jàngal sa doom respect mm-hmm. donc ko koy defal enseignement explicite mm-hmm. maanaam jàngale mu leer nañ lan mooy respect mais loolu dafay ànd ak dafay ànd ak modelage mooy maanaam modelage mooy nga joxe ko le modèle liñ naan lu waay di wuyoo da koy nuru parce que mënuloo jàngal sa doom respect ba pare yow yow tu ne reflètes pas ce respect là donc enseignement explicite deuxième étape le modelage après l' encouragement xale bi da nga soxla encouragement gis nga xale boo ko jàngal dox sa doom muy muy muy jàng dox mu daanu bu jugee xam nga da nga koy xool di ko tàccoo yooyu day jug bu la xoolee dans les yeux rek il se ramasse jugaat même buy daanu day jugaat par encouragement mooy kii la euh, booy boyal combustible la. ça veut dire que levier la. dafay même mag sax man mii su ma toogee nii kër ga su ma toogee damay def nii xool di jett sama jëkkër di xaar mu wax ma dafa neex j'en ai besoin là. mais man même les adultes en ont besoin sama photographe bi saa yu ma photowee. waaw damay xaar réaction wam. ah jékki-jékki photo rek ne ma allah ji meilleur. voilà donc su ma déggul loolu c'est comme si y a un nu muy nu muy muy mel ci mag xale ko gën a soxla. moo ko gën a soxla parce que xale moo toll ci war a màgg. donc ñu ñu xalaat ñu bàyyi xel ci loolu. Mhm. bàyyi xale ñu lekk lu neex li ñu bàyyi ñu bàyyi di jël yàpp wu duuf wi ak mhm. ndawli bu duuf gi. Mhm. di ko jox boroom kër yi bàyyi xale yi du laal diggu bool. wa dëgg yàlla nag <laughs> ñun moom suñu kër dañuy dem digg bool parce que xale moo war a màgg moo war a lekk protéine. quand même quand même moo war a lekk. moo war a grandir. Ramatoulaye tu as tellement raison. Euh, tu as tellement raison que euh, moi je suis ébloui ci sa ay propos xam naa li may def mooy pour ne pas guddal parce qu'il y a des émissions qui nous attendent quand même. Euh, on est on est quel jour on est mercredi. mercredi ah. mercredi donc ci kanam Eva Tra dina ñëw c'est sûr que Eva te recevra parce que moom mission woom mooy toujours di joxe ay thèmes di ko développer pour gën di yeete donte nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Uh-huh. mais on ne parle jamais sans l'avis des spécialistes. c'est uh-huh. ce que je dis tout le temps donc yow spécialiste nga jàngalekat nga ci dëkk bu mag bu mel ni Canada nga xam ne suñu rêve mooy dem dëkki fa euh, mënul ñàkk mais là euh, ce que tu proposes fu ñu la mën a fekk sur YouTube et, okay. et, sur les autres plateformes. Voilà, donc je suis déjà j'ai ma petite chaîne YouTube, j'ai ma page Facebook, Instagram, mais incha allahu rabbi. Mhm. ñaanal leen donc yàlla yeggale ko kenn bañ maa kar. Mhm. ci la ñu ah, yàlla kenn kar. Mhm. incha allah maa ngi ci euh, euh, euh, plateforme boo xamante par exemple incha allah parents yi. comme par exemple si un parent a une question. par exemple mon enfant ne m'écoute pas. wala mon enfant est paresseux. thème boo mën a tapé rek incha allahu rabi. Mhm. tu vas trouver la rubrique qu'il te mhm. faudra pour ça. Mhm. dans mon sur ma page Facebook nag j'ai comme une quarantaine de vidéos yoo xamante ni je pense que. Tout est disponible sur ta tout page. Tout est disponible sur la page. Et on peut te contacter sur ta page. Sur ma euh, page. Euh, comment elle la classe de Rahma. La classe de Facebook, okay. noonu la tudd euh, YouTube. nous montrons comme ça aux oh, en train de faire un live sur la discipline positive Oumou que je remercie, que je salue au passage. Et il y a aussi euh, mon amie Fatou. Mmh. Je ne peux pas ne pas parler d'elle parce que c'est elle qui a organisé le lancement. Mm-hmm. La cérémonie de lancement, c'est elle qui a tout, tout, tout, tout, fait. Donc euh, là, ça c'est dans la classe de Rahma, mais je pense que c'est bien qu'on qu peut-être le chapeau bi quoi. Euh, bannière bi ci kaw voilà bannière bi ci kaw comme ça nit ñi mën ko xàmmee. la classe de Rahma voilà donc un gros euh, coucou à ma chérie Fatou Ndir. qui mhm. m'a beaucoup aidé dans son temps libre. Mhm. elle était occupée. Mhm. mais à chaque fois qu'elle avait le temps libre elle m'aidait. Euh, c'est elle qui a pratiquement organisé en fait c'est elle qui a tout fait là. Mhm, mhm. la cérémonie de lancement. Mhm. Euh, on était à l'université ensemble et j'en profite aussi. pour remercier Mamadou Thiam notre cher Mamadou le conseiller. on était tous dans un groupe d'étudiants qu'on appelle Fataliku Demb. qui a été initié par Séni avec Bokoum Ndeye Penda yéen ñëpp maa leen nuyu Baba Ndiaye. donc bëgguma lim di juum baal leen ma. Euh, Fataliku Demb donc on est toujours ensemble. et puis est resté des amis. Paris. Mhm. on était tous là-bas. on a dansé on a ri macha allah lu yàgg dëgg la. donc euh, on est un groupe aussi de femmes boo xamante ni. Mhm. Euh, au Canada on fait il y a docteur Oumou Guissé Diagne qu'on a vu tout à l'heure mhm. il y a Diaba Traoré qui est coach euh, en développement personnel et hypnothérapeute. il aussi Astou. Betty Guissé Diagne on est très porté on a un groupe qui qui s'appelle Intensive Séduction. et boo ko déggee da nga yaakaar ne jonge la ak yooyu. mais ñun dañuy wane ni jonge jigéen mooy nga bëgg sa bopp. on fait femme qui est ouvert et puis mhm. j'invite aussi les femmes à y adhérer. Mhm. Donc Sokhna Dieng qui a la page Nenema que je salue aussi mhm. et j'espère qu'elle va être là parce que Ah, elle viendra nous oui, voir. il faut qu'elle vienne Ces initiatives m'intéressent. C'est une maman ouais. qui est dans autre chose mais qui fait des activités pour les enfants. Elle viendra nous voir. Inch'Allah Sokhna Dieng maa yoo xamante nañu trianema ñett xam ne waaye ñaar xam nañu donc elle fait des choses fabuleuses pour mhm. que les parents puissent passer du temps avec leur avec leurs avec enfants. leurs enfants voilà. pourquoi ma bëgg mu mujjee sama yaay. Mhm. donc parce que. <laughs> bëgguma jooy. mais vas-y rek t'inquiète. donc je remercie toute ma famille ma belle famille sama goro. Mhm. maman Softé Touré. Euh, toute la famille Touré nga xamante ni famille boo famille la boo xamante ni c'est pas une belle famille c'est une famille. Mm -hmm. c'est que macha allah. mënu ma ci sax wax parce que ma ci waxee sama xol dafay tooy. Mhm. muy sama goro muy sama ñoom ñëpp mère bi mhm. les en les filles. Mhm. xam nga ces ces enfants ces garçons les nièces les neveux. formidable mais professeurs d'école de lycée d'université. sama tante yi sama bàjjen yi. mais sama yaay aussi. je vois maintenant pourquoi pourquoi ngeen def lii pour xale yi tu es tellement sensible. parce que sama yaay. sama sama satu buur boobu. sëtu Penda Mbodj barak satu barak la. Diagne Marius c'est que tey su ma mënee toog su ma mënee su ma mënee toog am tey jii euh, bienveillance yi moom la. toroxalul dóorul saagawul xasul te pourtant day jàngale. Mm-hmm. c'est c'est que man mooy sama modèle. Mm-hmm. quand je parle du modèle positif man je dis que chaque parent. tu es le modèle de ton enfant. Mm-hmm. te man sama papa sama papa dafa teel a gaañ mais sama papa il avait tout compris sur la parentalité positive. sama papa tey jii. un jour ne peut pas passer sans pour autant ma xalaat ko ma ñaanal ko. parce que loolu. moom mooy yaa ngi may jooyloo nag te non man fu may ban moom jooy moom ta ñàkk moom. yaa ngi may jooyloo waaw j'ai tout fait mm. de ma famille. c'est que c'est très mm-hmm. mm-hmm. parce que bu ñu doon toroxal peut-être tey jii nii. Mm-hmm. du ma mën a aider. et tout enfant que sama yaay ba tey daf may tagg. ba tey ba may ñëw mi may may tagg. naan ma ca may may jaagar damay daf may tagg ba tey à mon sam papa il n'est plus la mais euh, dafa def ci ñun loo xamante ni macha allah li ñuy wax estime de soi mos naa ànd sama sama grand sœur mm-hmm. euh, ñu dem ba bunt pale mu taxaw mu ne ko fii fan la Khadi ne ko pale mu ne ko joomu la tu peux être là dedans mm-hmm. que yooyu mm-hmm. c'est des c'est des choses il faut que les parents le fassent pour pour leurs enfants il faut ñu yërëm xale yi c'est que boo bëggee ëllëg sa doom yërëm la naap la. Mm. ça veut que man sama yaay dama koy xool dama koy xool sama xool dafay tooy. bëri na ci ay dëkk yoo seen aada xale bi day judd léegi ñu xamal la ni président wu dëkk bi. waaw mën nga koo doon mën nga koo doon. donc xale bi dafay judd waale confiance merci beaucoup jàpp ni. ki jiite réew mi moom mën na ko doon merci yooyu gis naa ko Amérique par exemple merci beaucoup waaw je vis ça chez les Américains mais yor sa doom di ko xas muy ci aspect physique mhm. ay dangaa mel ni danga foo xaw ma foo ma toppee sa bopp bu rëy bi sa bopp rëy bi man liñ ma yàq ci sama bopp bu pourtant ré. walaay réyul macha allah Diallo eh, réyul de. dafa ni ma xool non non non c'est correct. Hmm. walaay réyul. Ah, heureusement ba développé complexe réyul heureusement parce que ma jëkkër xam nga ko tooñ léegi nii hmm, hmm. xam nga lan ko sauvé il c'est un artiste mon mari quand il quand il dessine en loolu ma naxee sax loolu la ma amee sax bañ nekk université parce que ah, on était université ensemble daf ma dessiné il me de beaux portraits donc c'est un artiste mon mari macha allah cher je te salue j'adore des moo ko sauvé mais su fekkoonte il n'avait pas cette artiste là en lui hmm. peut-être qu'il allait être frustré mais autant il avait des besoins te léegi macha hmm. il est très porté sur la face en difficulté ça veut hmm. dire que il peut te prendre un enfant qui ne peut pas lire et école euh, ñu leen di rey di leen tëj yooyu yëpp ci ci ci ci xale bi la c'est la c'est c'est les conséquences mm. des blessures de la. et pourtant nous on a tendance à dire ouais Sénégal dëkku jullit la. santaane li. yaa ngi koy wax bi ngay bi ngay tàmbali. la rahma ne ku ci dem. yàlla dina la laaj. la rahma sàmm gi ma la dénkoon. waay naka nga leen naka nga leen. gis nga Pape Cheikh gis nga Pape Cheikh affaire xale yi. man man man man dama koy wax fii. gis nga commune docteur a Girou il est psychologue cognitif. Mm-hmm. il travaille beaucoup dans ça. sama grand frère docteur Djibril Fall il est sociologue. c' que il faut nit ñi am ngeen di invité leen ñooñu. aussi ñu wax leen c' que dañu am parce que man j'ai fait la psychopédagogie. mais du ma psychologue ça veut dire que mënuma même su may su dee xam naa ko ñeme ma pousse ci pousse ci yenn affaires yi. donc on a besoin que les psychologues parlent aussi aux enfants aux parents. ñu xam ni. l'enfant se développe mhm. et a besoin un mhm. enfant des fois dañu dóor xale yi ne il fait des erreurs et tout mhm. alors que l'enfant ne fait pas d'erreur alors que l'enfant est en train de se construire il un courant pédagogique qu'on appelle le constructivisme xale bi tey jii nii il doit il construire ses connaissances à part essai erreur des fois xale bi ndeysaan day def benn affaire bu baax pour pour yaayam kontaan mais lu mu yàq la mais yàq na aux yeux de ses parents lu mu yàq la nga ñëw yaay ji dóor tell parce que aussi les femmes sont frustrées, Pape. Mm -hmm. Les femmes crient, mm -hmm. les femmes pleurent. Mm-hmm. des femmes du xale yi saaga parce que dañoo bien wul. je merci en tout <laughs> euh, on va finir cette émission euh, kontaan euh, nañu mais quand même ñi ci am chance comme Ramatoulaye euh, avoir des parents euh, formidables yal na suñu borom dëgëral seen parents yi man su ma amee liberté wu yàpp sama pap lu ma neex laa koy wax ci télé lu ma neex wax sama yaay ci mhm. télé bi c'est parce que j'ai des parents moi aussi formidables voilà exemple bu may mënti jël ci sama mhm. papa laa koy jëlee c'est deux personnes qui s'aiment toujours quoi dañuy mhm. couplé mhm. euh, di ma seetaan bu ñu dee ndékki sax mais bon dama leen yàpp parce qu'ils ont été formidables créer relation de confiance entre parents ak euh, doom dafay indi doom bu màggee man dara safuma boo ma tiimoon di ma saaga estime de soi du ma ko dégg estime de soi yi ma fi dégg bëri na mhm. waaye lépp rek estime de mhm. soi bi koo waral euh, way jur ñoo ko jox et on demande encore à tous les parents mhm. de de faire pour leurs enfants quel sera le message euh, pour ñu tàggatoo en attendant ñu lay topp parce que tout ce que tu feras comme les autres initiatives ko wane ci télé bi incha allah donc juste remercier ma famille encore une fois mama Kiné mm. papa Djibi tata Khadija mes nièces mm. sama tante que c'est la deuxième maman Mm-hmm. de la famille mm-hmm. sama bàjjen yi sama nijaay yi sama cousin yi cousines yi mm-hmm. et sama goro sama belle famille nga xamante ni c'est ma famille de cœur aussi et puis mes amis de fàttaliku démb le groupe des médecins Prochic avec Oumohamed Khalifa docteur Malick Diop nga xamante ni elle m'avait il m'avait les femmes elle m'avait aidé à faire une rubrique sur les conséquences des cris sur les enfants et sur la santé de personnes ñoom ñoo ma jàppale woon ba ma def rubrique boobu noonu donc bëgguma lim daal di juum mais maa ngi suivre maa ngi nuyu aussi sama abonné yi Italie waa Gatineau waa Canada mes collègues de mes collègues enseignants euh, Oumou Kassoum Yahya Diop ñoom mhm. Sadi Fat Sadi <laughs> donc tout le monde et puis je dis aux parents un mhm. enfant fait mhm. bien quand il se sent bien dans son cœur dans sa tête. nañu gunge xale yi. Mhm. ñu reetaan comme ça ëllëg. Mhm. suñu feesee seen xool tey. Mhm. ëllëg ñun daañu fees ñoom seeni xool macha allah. parfait merci en tout cas Ramatoulaye. Euh, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook par exemple avec la classe de Rahma euh, je vais benn exemple euh, wanaat leen ko bu yàggul j'ai invité Aminia c'est c'est c'est c'est une sœur d'amour mu ñëw ak doomam. Najiba alors Najiba gis ngeen handicap bi nga xamee ne am na ko daanaka laata muy juddu la ko tey. Mm. Euh, presque yaram bi yëpp dafa euh, am handicap. Mm-hmm. mais yaay ji accompagner na ko ba cette fille que vous voyez euh, sama la. voilà parce que moi je suis amoureux d'elle <laughs> et moom tamit elle amoureuse de moi elle est devenue mannequin. Mm-hmm. elle va défiler par exemple pour Adama Paris. elle est en train même d'organiser des événements cette petite fille que vous voyez et que vous avez vu il y a pas longtemps dans cette émission mu ngi am handicap boo xam ne dafa cérébral heureusement ba yaay ji jàppale na et que moom la une soirée caritative soirée caritative bi nag ñun dañ ci jàpp dina ko amal jeudi 16 décembre à partir de 18h fii ci phare des Mamelles un très bon coin da ngay toog am coucher de soleil team Dakar et en plus de euh, soirée bi nga mën a enjoy Euh, lépp loo xamante ni am na fa comme xaalis euh, dañu koy dugalaat euh, ci xale yi nga xamante ni ñoo amee laago donc soirée caritative avec Najiba Samuel jeudi 16 décembre maanaam après-demain ce sera à partir de 18 heures faites vos réservations pour soutenir cause bi nga xamante ni Amignan ak Najiba ñoo ngi ci ci 77 343 42 42 n'oubliez pas bu dee da ngeen bëgg a jënd ay kado pour vos enfants bégal leen xale yi on vous conseille ngeen dem Kids Palace euh, on vous euh, propose vraiment ay jouets yu am solo pour tous vos enfants c'est-à-dire euh, loo am ci sa poche mën nga am kado fii ci euh, Kids Palace demain je vous donnerai adresse numéro de téléphone les possibilités tout ce qu'il y a comme jouet euh, chez Kids Palace puisque euh, pendant ou durant tout ce mois de décembre dañuy àndandoo ak Kids Palace et puis euh, ñu ngi préparer ñun mag ñi soirée VIP yu Ndour ak Super Étoile mënul ñàkk euh, surtout euh, classe Ramatoulaye bi nekk vacances Sénégal d'ailleurs moom Youssou Ndour jot na dem def visite fi nga xamante ni moo di place du souvenir ci soirée VIP bi nga xamante ni ñu ngi ko nar a amal samedi 25 décembre il était accompagné par Ndiaga Ndiaye moom moo fa nekk. nekkoon euh, Ndiaga Ndour <laughs> euh, on a écrit Ndiaga alors que man xaw ma kuy Ndiaga Ndiaye euh, voilà avec les équipes pour xool sécurité bi bërëb bi. ak naka la nit ñi euh, nara organiser woo euh, pour passer une bonne soirée euh, dans la paix donc loolu moo tax Youssou Ndour ci xaajo guddi mu demoon ak ay équipe am def visite ca fi nga xamante ni moo di place du souvenir je pense que ce reportage naa leen ko woon suba puisque 14 vingt 26 mooy doog jot et que malheureusement émission bi jeex na buggoon naa continuer ak yéen ba ca kanam mais bon. comme ni ko ñi di waxee lu juwa jeexul jugu fa donc suba dinaa dellu si à partir de 11h45 merci encore Ramatoulaye. merci beaucoup Pape et euh, on se retrouvera à Ngaparou. incha allah chez Soxna oui <laughs> localité waaw ah, il faut que ñu dem localité. et puis aussi parents yi parents yi euh, euh, euh, sensibiliser vos enfants. Mm. parce que da wax léegi ak Najiba sama dem ci. Mm-hmm. lu ma war a wax la. Mm-hmm. l'enfance en difficulté. Mm-hmm. xam leen ni. ki jur doom mu am handicap wala dara. sa sa du ñàkk faydaam du lanam. nga am doom yàlla may ko mu nekk nekk dans le standard du sa fulla du sa fayda mhm. sensibiliser vos enfants ñu respecter les enfants différents mhm. parce que la différence c'est pas un handicap c'est une mhm. richesse l'handicap dëggantaan ci xol la ci xel ak ci làmmiñ voilà waaw je pense que le message le message est très important. merci à toute l' équipe de production dirigée par Aboulaye Laye Makhtar ñu ngi lay gërëm et puis on pense à Pape Samba Thiam ak euh, soxnaam Aïda Ndiaye euh, madame Thiam ils sont en train de nous regarder tey Pape Samba Thiam il n' pas venu mais Aboulaye a bien géré moo nekkoon ci cabine technique bi àndoon ak euh, ñoom grand Jogomaay El Hadj Babacar Bey ñu toutes les équipes en tout cas merci pour ce magnifique travail que vous la pause ma dellu si midi mooy lay tàmbali pour midi plus Thioro Mbaye Mbaar Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax ci coordination bi yow ak Mamadou Ndiaye ainsi que rédaction bu télévision Futur Média Bouba Ndour mi nga xamante ni moo produire euh, jotaay bile moom it ñu ngi koy gërëm tous les jours je rappelle encore cocktail bi information ak divertissement pour vous accompagner à l'heure de la pause bon appétit et à demain